si yeeg yooyu noonu am na mysti mysticité bu rëy bi ci am hmm. miss yi dañuy yàqanteeg poobarante. bah bien sûr ça moom c'est. tu as vécu ça yow. bien sûr je l'ai vécu. <laughs> ci ban ci ci ban côté da nga fekk ñu tegal la ay nen wala tegal la ay poobar wala tegal la. ay non on a mis des des trucs dans dans mes bagages. lan lañ fa dugal. je sais pas des. <laughs> je sais pa ay percal ay je sais pas des. ci compétition bii nii nii nii bii nii nii nii mm. nga ñëw fekk sa bagage eh, eh, nu mu demee raconte-nous comment ça s'est bon <laughs> non non xam xam nga ñun booy wax man man mi la wax loolu. Uh-huh. je suis au courant. Mm. xam naa li xew. Mm. mais c'est juste que tu parles au sénégalais. léegi raconte-nous l'histoire comment ça s'est passé bi nga ñëwee xanaa da nga yuuxu woo Max ne ko. waaw j'étais choquée parce que. non comment ça s'est passé bu ñu ma j'étais choquée <laughs> j'étais choquée avant choquée bi ñuy ñëw lan moo xew. avant choquée bi bon dañu dañu woon def shooting. Mhm. après ñu wàcc ñu ñëpp ñu ñëpp def shooting ndaxte jour boobu dañu war a ñibbi. Mhm. mooy bi nekkee villa ba Diamniadio. Mhm. Euh, après euh, ñu def shooting ba pare fekk boobu defar naa sama bagage yi j'ai rangé tout mes valises et tout heureusement. ko génne naa sama yére yëpp dugal sama valise après ñu wàcc def shoot yi bu ñu yéegaatee euh, ñu ne ñu defal leen seen bagage pour nga ñëw ngeen ñibbi après man bizarrement euh, ma ni sama xel est-ce que bàyyi ma fi dara parce que dama xaw a sàggan affaire yooyu ma tijji tiroir bi noonu et j'ai vu le truc j'ai vu des des ay ay affaire foofu noonu ay <coughs> wëñ ay puso ay xaatim ay lu ñu bind ay kii. voilà ay percale ñu jël voilà et c' était quelque chose qui était destiné à moi parce que euh, ñun dañ doon toog si chambre bu ñun ñëpp donc ku nekk xamoon nga kii ngay fi ngay def sa bagage et tout euh, voilà et puis j'ai crié tayuma ko <laughs> parce que c'était quelque chose boo xam ne man xawuma ko mhm. parce que daanaa dégg liggéey liggéey li mais mosuma teg sama bët mhm. mais ce jour là ci laa gëm ne que lii nii ça existe ça existe voilà ci laa ko gis ma choqué nga choqué juste comme ça après j'ai appelé les gens ñëw foofu noonu mooy loolu. Hmm. mais bon c'est quelque chose de euh, day am en fait. Hmm. ça arrive ci ay compétition ça arrive ku nekk ay compétition Miss moom. Miss ku ne Miss normalement daa war wax classe. oui mais xam nga rek euh, comme ay sénégalais lañ ay hmm. nit ñu lañ. voilà ku ne ak li nga xam am na ñoo xam peut-être jàpp nañ ni loolu moo leen di may. pour ñu gagner. léegi waa Thiès. Hmm. lu tax gisuñu leen peut-être je sais pas lan moo tax gisuñu Thiès sa ginnaaw. lu tax gisuñu Thiès. parce que Miss Thiès. Hmm. buy compétir. Hmm. taxaw biir Grand Théâtre di compétir ak Miss Dakar ak Miss Géeje euh, Miss Kaolack. Miss Kédougou te bu ñu ne Miss Dakar ñëpp yuux bu ñu ne Miss. Euh, Kaolack ñëpp yuuxu te bu ñu ne Miss Thiès on voit vraiment que ne le <clears throat> le public de Thiès est en rade. Mhm. lu bon lu lool loolu <laughs> je sais pas xaw ma franchement mais daal euh, c'était dur ak euh, compétition bi ak suñu présidente comité yi et tout ça hum, c'était compliqué peut-être que. c'était compliqué lan compliqué parce que ñun da ngay taal lamp yi fii blabla buzz la tu es avec Vito Gueye on est relax on parle de tout on parle de yow li la métti on parle de li la neex aussi mm-hmm. mais bu ñu ñëwee ci li la neex mm-hmm. quand tu joyeuse ba pare wax ci lu la saf mm-hmm. bu ñëwee ci yi la métti nga naan non c'était tout di reetaan amut solo lan moo xew exactement wala wala yow da nga amul buzz wala da nga amul buzz Thiès amul buzz Thiès waa Thiès ak yooyu wala waa mën ne aussi parce que parce que parce que dama xaw a décalé wu ville Thiès en fait parce que maa ngi dëkk Khombole. Mm-hmm. mais loolu du ci dara en fait parce que y avait des gens. non yu dëkkoon Thiès yu ma doon soutenir. Mm-hmm. yu dëkk si biir ville bi. léegi autorité autorité Thiès yi yu bëggoon ñëw et tout. autorité Thiès yi. parce que ñëw tamit parce que man Vito mën naa nekk mm. Thiès bëgg a soutenir Siyassine. Mm-hmm. heure bi heure bu compétition bi doon am c'est pas évident surtout bu nekkee xale. te yow buñ ne yaa seen xale yi la gën a bëgg. Hmm. jógee Thiès benn vingt 22h ñëw Dakar c'était pas évident. donc hmm. fallait que euh, gars yi mettre sur pied ay moyens yi nga xamante ne peut-être sax may la benn bus wala ñaar. ñoom ñu hmm. dugg ci bus yi ñëw may leen ay ticket ñu ñëw dugg mais lan moo tax autorités yi wala si yow yaa demul vers eux. Non, en fait, c'est pas à moi d'aller vers les autorités. Non, si. Mais la coordonnatrice du comité régional. Parce que moom moo chargé au LOL, non. bon léegi nag euh, la coordonnatrice du comité régional. kan mooy coordonnatrice comité régional bi. Euh, <laughs> madame Aïda voilà donc euh, moom ak Miss bi ñoom ñoo war di ànd wala je sais wala moom peut-être après c' est à eux de gérer ça. Mm-hmm. mais malheureusement bon on n'a pas eu le temps de le faire. avec élections locaux élections locaux et les liste et tout ça. Mm-hmm. mais aussi aussi bon. peut-être qu'il y avait des incompréhensions par rapport ak ñoom mhm. que amul woon benn benn ouverture bi yow présidente comité comité régional. voilà am woon benn couverture amul woon benn ouverture bi pour. mës ngeen ànd fenn wala mos na la yóbbu fenn mos na la yóbbu présenté la benn maire maireu Thiès. non pas maireu Thiès kii bi affaire yooyu noonu. dama jël exemple maireu Thiès quoi. voilà am nañ am nañ fu ñu jot am nañ ànd nañ ànd nañ jot nañ dem ci ay quelques jours mais c'est pas c'était pas y avait pas de y avait pas de kii en fait. suivi y pas de suivi. il n'y avait pas de suivi en plus euh, je, euh, bon à un moment donné euh, je me sentais euh, je sais pas <laughs> abandonnée je voulais dire pour dire parce que parce que j'avais j'avais bon Max c'est c'est mon manager bëgguma ko dugal ci affaire de Miss mhm. Sénégal parce que c'est complexe parce mhm. que parce que parce que quand on est Miss c'est le comité mhm. moo lay gérer. Mhm. mais pourquoi Donc, tu t'es euh, je me suis sentie abandonnée parce que la dame bon je sentais comme si elle était désintéressée je sais pas qu'est-ce qui mhm. se passe mais euh, je mais man dama obligé woon à ce que di ko woo di wax est-ce que duñ dem fii est-ce que duñ dem fële et compliqué parce que euh, on me dit souvent yow toogal rek on va tout gérer bon après on gère pas on gère rien Euh, on se retrouve avec rien ba à la fin ba dernier ba moom ci laa xam ni que voilà y a plus rien bon sama moroom yi ñi am nañ parent ñi am nañ marraine. kon yow Miss Sénégal bi da nga ci ci ci parti noonu rek takk sa fi dem yow kese. non après am ay voilà ci laa mujj am ñu ma jàppale comme euh, Jules Ba de Khombole. sama frère sama xarit ak ay euh, sama ay nit yu ma xam ma ñu dëkk Thiès ñu may jàppale ak ñu dëkk Xombol ñu ma jàppale euh, de même aussi le ministre de l'intérieur et des autorités mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne Xombol ak Thiès Xombol ak Thiès voilà mhm. mais c'était euh, comment dire dernière minute ci laa kon dernière minute daal yow bu ma déggee Aïda Fall ah. moomu Euh, responsable comité régional bi. Hmm. à la tu as réalisé que ne vaut mieux y